السلام عليكم شيرامي انترنت ما لين بغ دي لين بيغي دي لين زياد دي لين جوخ سين واتواي دي لين واخنا نمون نالين واي ما رواه كوم ني مكو واخي ساك جور ngeen amaat seen émission bi nga xamante ne moom mooy ma wane ko ma wane ko nag tey ñu ñëw ci ku spécial laa leen di wax ku spécial la ñu seet si fekk si ko fii ci Malika ci bërëbu liggéeykaayam ñu gën koo xam ci Baye Fall di ko dégg partout dans le monde macha allah tey nag moom lañ seet si mais balaa ñuy sori dañ koy bàyyi moom mu nuyu suñu ami internet yi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre à travers Nite FM Fall ñu leen lay nuyu di la ziar. waaw soxna si maa leen di ziar di nuyu mboolem ñi déglu di ñu seetaan. di wax ni lépp lu ñu fi wax muy lu baax xam ne ndimbalu suñu borom la su amee it safaan ñu xam ne ñun ay nit rek lañu waaye maa ngi leen di jaajëfal di jaajëfal télé bi. Fall kontaan nañ ci nuyoo bi dégg nga Fall de man Fall laa bëgg di ko xëy di ko wër soo bëgg di jëf ma dem tëddi daf may neex ma fekk si ko fi nga xamante ne tey fi lay doore waar yow tur nag moom suñu émission bi nga xamante ne moom mooy ma wane ko nee naa leen ma wane ko ci lu waay nekk di ci yëngu rek man Femme waar fa yéene naa sol sama dàll ñoo fekk si la ci ngir nu partagé ci Fall mu bëgg a xam kan mooy Baye Fall waaw xam naa ni nag nit pour nga wax sa bopp dina xaw a jafe waaye ñu jéem rek présenté wu man Daouda Ndiaye laa tudd. Mhm. nekk artiste musicien batteur. Mhm. waaw def euh, trente deux ans de musique. Mhm. joué groupe yu bari fii ci Sénégal ak bitim réew. loolu daal laa xam ne mun naa ko def comme présentation. mais li nga ñu wax nii bett na ñu que ñun sa tur xamuñu ko lan moo indi turu Baye Fall bi kese kese tout court. waaw Baye Fall nag bon tuddeewu ma ko sama bopp. xëy na ba may jóge Europe di ñëw. Mhm. Euh, dama amoon opté pour def dara Sénégal. ma mhm. ubbi benn place comico yëmbal. Mhm. yàlla dimbali ñu. mais gars yi daal xam naa ak rase yeeg ndomba baat yi. rek ñu ne ma Baye Fall Baye Fall. ma kontaan ci nag quoi ndax dama naan ñun ñëpp ay Baye Fall lañu. waaw looloo indi baay Fall. mais tur daa wuyu borom parce que nee nañ lu waaye di jaay lu ne rek na fekk nga koy wuyoo. mom Baye Fall turam wuy borom Nekul dara mais ci akutur mam dafa bayfal Fall waxaal waxam Baye Fall mala. la dundam dund Fall la ñu fekk ci ko fi muy dóore wa di Malika yene ko deg ci bir waxam def na immigré jaar na ci genn dugg ci wat ban inspiration nga am ba indil ñu li ni parce que fi ni décor bu doy war lañ fi gis plus que lolu Baye Fall lan mo indi digantem ak artiste ba fi ko bëgg gis artiste fi ngay ñew ne xam dem place ba nga fekk fa artiste bi Fall la mo ne sa digantek artiste waaw sama diggante gars yi xanaa ñu bokk métier mi parce que artiste la c'est normal que say nit ñëw fekk si la sa environnement waaw ma ciy kontaan trop nag ndax ku fi ñëw rek wax benn la mhm. ñoom li ñuy njëkk a wax mooy style bi dafa bàyyi faale mhm. wuyu sama tur mhm. <laughs> ba pare it ah dañ ciy gis seen bopp ndax milieu bi mi euh, kër artistes yi la dañ fi ñëw di fi divertir wu mhm. voilà loolu moo tax xëy na boo ñu bëgg place bi parce que dañuy gis fu waay jógee rek ne xaaral ma dem place su Baye Fall Baye Fall ci accueil am Baye faal ci leneen leen bay Fall bu dul artistes yi kese sa diggante ak doomu gaa aadama yi ma gis ne dañ laa jox bopp lool a lan nga liggéey sa diggante ak doomu aadama yi ba tax ñu jox la bopp waaw xam nga àddina moom boo ci nekkee defe naa ni boo yëkkatee sa loxo bi ne faalewu ma kenn yëkkatil beneen bi ne kenn faalewu ma man nag euh, suma yaay daf ma yar suma papa aussi liñ ma njëkk a jàngal mooy nit ki foo mën a dem boo gisee sa moroomu baay def ko ni sa baay soo gisee sa moroomu yaay def ko ni sa yaay bon loolu laa jàpp rek ku fi ñëw dinaa kaf dinaa ree ba pare it loolooy yore kër gi ndax defe naa bu ubbee sa kër ba pare fa sa kanam ah di nga wéddee waaw looloo tax ma ni ah nañ ko jàmmal rek ku fi ñëw ñu jox la jàmm soo bëggee lekk ñu jox la nga lekk soo bëggee naan ñu defar la ko it waaw looloo tax xëy na Baye moo la lan moo ci lii nii inspiration bi lan moo ko def ci yow waaw inspiration bi xam nga ñun Malika juddoo wuñ fii man fas laa juddoo lenqaliko Médina jaar Colobane daa di nag réglé yëmbal <laughs> yëmbal laa réglé <laughs> fa laa dale yàlla sutura bañ nekkee xale fii la ñëw di fi fooye dëgg la waaw am nañ inspiration comme li fi nekkoon jóge na fi mhm. ñu ne pourquoi pas mhm. ñu créer loo xam ni dinañ ko mën a defar ba mu baax ku bëgg féexlu ñëw féexlu. xam nga. jàkkaarloo géej gi defe naa loolu day am solo daal surtout plage yu mel ni Malika. looloo indi inspiration bi ñu def place bi. ñu gis ne li yaa fi initié ah, li Malika yàgg na fi nekk ñu doon fi dégg ñu baal ma ay ay ay campement ay affaire bi ñu ko terrassé pour li taxaw fi nag jafe woon na lool Baye Fall je pense ñu gis ne Malika dañuy wax ne dëkku diine la ba tax na ñoom ñu taxaw ci dindi fi loolu noonu mais lii ana ban conséquence nga ci nga ci dund. Fall parce que nag lii yombul pour nga taxawal lii. Mm. ana la nag lan nga ci dund. waaw xam nga mbir moom. dara yombul dans la vie quoi àddina moom mel noonu. Mm-hmm. mais euh, li ñuy wax nit ki da ngay bëgg dara pour mu réussir. bon ñëw nañ def ko am na ñu ne waaw am na ñu ne déet. Mm-hmm. te ba tey bawuñu ñu. daaw da ëmb na rek laa déggul mun naa ni Baye Fall sax donc <laughs> lu ne dégg naa ko. ndeysaan dañuy ñëw naan balaa day jaay sàngara.

On travaille pour, pour tout le monde. pour l'avenir mhm. merci beaucoup parce que ça c'est l'avenir merci beaucoup looloo tax bon ñii wax nañu nopal mais mënu ñu leen teree wax ndax ku ñu gën mhm. muy gën gi mindeef mhm. moo ñu ëppone baati ginnaaw ah kon ñun duñ ko mëna bañ dal li ñuy wax dal ku ñuy sédd ci gaalu xaj buñ la fa fekk nii la demee ok ma gis ne Baye Fall day jaay agn day jaay ay lakk jën macha ak fu way nek naka ñu bay ci xel mooy fi waay mënti nekk ci dakaar rek boo contacter Baye Fall mi incha allahu taala plat boo soxla plat boo soxla soo ko woowee dañ la koy livrer sans problème loo bëgg boo ko commandé ñu toggal la ko livrer la ko sans problème may ñëwaat ci Baye Fall ma gis li nga def nii offre d'emploi la ñaata élément ngay liggéey ndool par jour. waaw élément yi nag day varié parce que mënul fixe sax nga liggéey géej ay temps la. dëgg la été bi lay gëna dox. Mhm. ci la ëpp ñu fi liggéey dinañ dem ba ay 7 8 personnes. ok waaw légui bu hiver bi ñëwee na dañuy wañi motax mhm. loolu dama doon wax ni dama koy bañ sax suma sañoon. Mhm. géej amul temps. non non parce que brise de mer dafa baax ci doomu adama muy sedd muy tangay xeyna na na ñun Sénégal dañoo ragal sedd. mais suma ma luma gënal damay defar fi ba nga xamni été ak hiver ak. lu mu mën a doon daal nit yi dinañ mën a ñëw fii di féexlu quoi. waaye vraiment Baye Fall lii nice na bu dul lii aussi am nga leen parce que yaa ngi wax ne def nga musique jaar nga ci musique comme yéen dane nga wax yaa ngi gis léegi Baye Fall am na ay inspiration ñu gis la aussi ngay def lu doy waar Baye Fall bu dëppoon fii leket tukkal àdduna. lu waay tëgg bu ci Baay Faal jaaraatee nga dégg solo ba ca biir lay sori ci biir ma la Baay Faal tegal Faal lool lan la. da garaaw yow boo ma ko laaju woon rek ma rus barki Cheikh mais is xam nga dama laa bëgg yow. maa da ngaa am jom xam nga lu tax ni ma jéqatee bay xeer xool samay leget mais am naa fi leget est-ce que yow yaa ngi dem marché. xam naa doo tëgg ci leget mais dama lay jox benn nga dugg ci. loolu ndax dafa am ñoo xam ni dañu jàpp ne. Mhm. leget. Mhm. Euh, dañ ciy ndugg rek. mais leget dafa sacré. ndeysaan. leget mën nga ci def gàllaaj sax sëriñ dala koy jox ni la sangoo ko ci leget ndax mu dëgër. akay dañ naan la boo takkee soxna ñun suñu aada. laax bi ngeen di lekk seen kaw lal seen biir néeg mhm. nañ ko def ci leket ndax sëy bi am barke déggal ñu naan boo nga koy nduggee it kër gi du gental déedéet man yi nag comme yooyu yëpp xam nañ ko te leket sonorité bi dafa neex ma jël ko man di ko musique nee naan uq la ciy def uq xam ngeen la moo uq barki Serigne Bamba Mbacke Baye Fall bu dëppee leket uq la ciy def lu mel ni jàmm Baye tamit leket ñamaataatuñu la nga ne leket na nag lan lay def leket mais yow légat intéressé na la. bu isa xam nga buy sax début bi day nekk fruit. Hmm. waaw. ba pare fii rek lay sax Afrique amul Europe. dégg nga loolu. ba ma defee sérifu lu ma woo ci ay tubaab xaw ma nu mu tolloo. ndeysaan. ak daal nañu waaw nañ ñaan daal leket. mu law mu law. <laughs> ay ca leket nay la waa dee nañ lawtal la comme ni ko sama Baye Fall waxee yéen ko dégg sama gaa yi nee na ma ndax booy dem marché di nga yóbbu leket da jël li wax ci leket boo takkee sëy reer bi ngeen njëkk a reer ak sa borom kër muy laax ci leket dan la koy defal tegal ko ci sa kaw lal ngay dem marché di ko duggee kër ga du génn foofu jox na fi message jégg ndaw ji mooy da ngeen war a xam ne leket lawtal la nay law di saawaan di baawaan ca kaw ay ca Baye Fall ñu bëgg xam nag lan mooy say projet nag Baye Fall lan mooy say projet ak garaaw man ba nga ñëwee laa xam ne am naa problème ndax di ma laaj lépp mais nañu wax rek duñ mën a wax. waaw dañoo bëgg xam Baye Fall. en tout cas kontaan naa ci projet yi. am na lu ñuy waajal. Mhm. le 7 août. ba le 13 incha allah. festival bu mag ñu koy mhm. def ak Aar Cosaan. Mhm. suñu association la bu nekk France. am tamit ay représentants fii ci Sénégal. boobu ba léegi nag ci lañ nekk di liggéey. tey rek ce matin yi ñu mujjee def dernière réunion. di ñaan nag yàlla may ñu ñu fekkee ko mm. waaw bëri na activité yi fi def dina am ay données de sang dañ def tamit euh, consultation gratuite mhm. am match football mhm. am tournoi beach soccer mhm. am tamit marché foire am concert am way kat yu mak yu fi ñëw wa semaine bobu yépp dal ku bëgg lu neex mm. wala nga koy jéem feneen bu la wóoree ni nelaw nga fi lay xewé ci Malika Place kër Baye Fall waaw ku doon liggéey da nga wàcc te xam ne ba doon tool ñëw na xandoor bu dambee ca waree wàcc na baay Fall a ngi nii borom Malika plage baay Fall a ngi nii borom leket gi lawtan gi da ngeen lim leen wax waaj leen festival bi incha allahu taala le 7 août lay démarrer n'est-ce pas le 7 août ba le 13 barki Serigne Bamba Mbacke dina mel ni ba ngoon njaaye mamba rek nga noppi ya dem ay Fall <laughs> ñuy innover Baye Fall innové fi lu doy waar ba tax na li ñuy wax ne lu baax soo ko defee doo ci wét da nga ciy am ay nawle mu am ay naataangoo ñëw samp ci wetam moom mu dem ak yéwénam mais pourquoi lan moo tax Baye Fall autorité gisuñu ñoom ñu jéem a taxaw benn yoon ci soutenir leen parce que nag ñun ay doomu Malika la ñaa ah. gisuñu ñoom ñu taxaw soutenir leen ci benn côté lu dul loolu comme toilette yi nga wax imagine toi fii ak ni mu toll ak doomu aadama yi fii daje lu tax mënuñ ñoo créer genre benn toilette lan la autorité est-ce que ñu ngi fiy dugg ñoom di xam yow li nga leen defal ne lii ñoom seen la waaw mais bu fekkoon sax dañuy ñëw sax pour defar wala defaruñu sax ñu jàppale ñu sax mu neex. Mhm. mais man léegi mairie bu Malika bu ma woowee damay tiit. pourquoi mais imagine tamay doomu sénégalais. parce que heure bu ñu la woowee lu ñu lay wax bu subaa nga jóge fii. te duñ ko teg fu leer. mais c'est du n'importe quoi. xale yaa ngi jël gaal gi. Mhm. man Europe j'ai fait presque 9 ans.

chaque jour nga koy promettre di ngeen fi jógee dañuy defaraat mais ba kañ nañu arrêté quoi ñun ñëpp ay sénégalais lañu. Mhm. ñun liggéey moo ñu tax a jóg. Mhm. lu bon mënu fee xew. man dama am tur jomb naa di jël fii di luwe ay néeg di jaay ay sangara pour lan. am naa beneen pexe. di ci am batteur. batterie mooy suma instrument. ma def ci lu ne. Mhm. jéeg waykat yu mag. jéeg naa Kumba Gawlo. jéeg naa Titi. joué naa tuuti Viviane. waaw joué naa ak Ismaïla Lo. ba léegi maa ngi joué Lo. ah ay Fallou Jifa ak ay groupe Ngalu yeneen groupe yu ndaw yi kon am na fu ñu jaar mbapat nañ ko. kon loolu rek buñ ci yemoon mun nañu dundal. mais nañ ni jinax bu bëggee gudd fan day bëri pax. ñu ñëw créé leneen teg ko. nañ ñu jàppale ba samp ci leket yow leket gi dina toj solu bon nag ngeen baal ma ah. soxna si bëgg na legat de mais yaay yaay legat li ci ne da graw li ne ci leket soxna si mënuñu koo wax. c'est leket bi leket bi li ma ci gën a garaaw mooy damaa tëdd ba guddi yàlla xam ne ma njëkk a gis image bi ma tëdd ba guddi ma gis ñu teg yaa ngi pop pop ci xale bi nga ci tëggul doy waa barki Serigne saali bi ma yaakaar ah, dama doon fecc fi ma tëdd barki alxuraan. ndeysaan billaay wallaay taalaay du ay caaxaan. bëri nga ci moroom mhm. man tey am na ñu xam dañ may woo ni ma mais yow affaire ñoom pour ñoom sax man ak Serifo duggoon duggandoo studio. dëgg la te yàlla mi ma tiim xam na ni Serifo man xamuma ko woon. Mhm. xam nga. Mhm. grâce morsom bi moo tax ñu xamante. mu nekk Baye Fall. waaw man dama ko bëgg parce que bëri na waykat yu ma def. ñenn ñi dañ may woo wala après lañ koy dégg sax woo la. mais Cherif dafa am franc boo xam ne dafa ne ci moom. dafa ñëw woo ma direct ni ma dama doon wër sa numéro. moo sa bi da nga yokk audience bi. nit yi di ko bëggee quoi te bu ko neexoon day toog rek ni sama morceau la waa ji da ci doon foo mhm. mais ku ñàkk ki ñaan la am na jom torop sérieux digab ayca ma ne leen yéen ko dégg ah

li muy def defu ko pour moom li muy def defu ko pour ñun da koy def pour àdduna parce que fii fu jóge ci àdduna rek boo amee nit war nga koo mën a indi ba place su mu toog fi découvrir Sénégal découvrir teranga Sénégal chez Baye faal man lii mën naa koo dëggal kon nañ ko bàyyiwaat xel jàppalewaat ko te bàyyi ko mu liggéey nag parce que nag liggéeykat la macha allah. faal yaaram kat nga dañ lay ñaanal yàlla teg la loxo yàlla miy jàppale te ku mu jàppale ku ne ñu dégg la ca kaw faal yàlla nga romb fii balaa déwén barki Serigne Saliou place bi yàlla na jur a jur ba ba dépassé ay jur déggoo ma de waaye faal lépp di law rek ci leket gi faal boo ma leketaloon dina la neex trop ay soxna si bàyyi leket gi yow leket dina la def lu bon de léget daa garaaw dafa garaaw léget li <laughs> sa xam nga yenn saa yi damay toog ba guddi am man fi laay ne di garder bagage yi mhm. mais damay jékki-jékki su ma amee insomnie mhm. rek ma toog ci digg laal bi teg léget teg musique bu ma saf def ca la ma neex su ma neexee ma génne su ma neexee ma denc ko man xam nga lu may bañ stress bëgguma lu may sonal dégg réew mi dafa metti soo yenoo problème yi da ngay am problème daal moo tax damay jéngu su xel mi fàttee rek ndax mënul ñàkk mhm. dañuy dund ak moom rek ma uf sama leket man daal leket gay sama xarit man daal j'adore j'adore ayca <laughs> ñu ñëwoon fii ci plage Malika bi ah kenn dootu leen ko waxati ñu woon fi fekk si fi ki nga xamante ni kii mooy Baye Fall muy liggéey lu nice nekk ku am jom nekk ku baax di ko am taalibe tëjil place am bi ñëpp nag fu waaye nekk rek comme li ma leen wax dee leen seet si Baye Fall mi leen di bégal day dàq naqar di dëkkal bànneex ci seen biir xool soo ñëwee accueil bi dina nice job bi mu ngi set ñi muy liggéeyandool aussi li ñuy liggéey ñu ngi koy teg ci code ñu la jaayee ataaya nga naan mu neex bu ñu la jaayee kafe nga naan mu neex buñ la jaayee lekk nga lekk sa bëpp sa biir fees mu set sell lool te ànd ak jàmm ñu ngi woon fii ci plage yu Malika bi man nag ngeen ko doon femme noire la femme bien préparée, préparé comme ni ma leen koy waxee bilaax yow ci Nité FM la radio du département de Kermessar. comme la TV du département de Kër Massar Fall Yaram a ngi nii Fall Yaram tëjal la saf ñu tëj rek réew mi yëngu. non dag ma fàttali sama benn jigéen ndeysaan maa ngi koy nuyu de passage. Mhm. Fat Mballo mi ngi Suisse Genève. Ndeysane. 99 ñoo àndoon dem France. Ndeysane. Ndeysane, benn jour quoi.

legui nak munima ni ma jaar ma ah man de yaay gungé gunge waw yo bo may gunge tam mun nga maay jappalé ñu xam buntu bi man ko man dal gis na ne ñanga né so duggé nak ma top la fan problème mooy fa jaar ba dug moma jaaxal legui comme dañoo sédon ni ñi taxawé dañuy gëna lew léew jaabanté ni ñi jaabanté ba xawa ki rek buntu bi ne feeb ndekete boo ko rek mu ko rek ñu tëb dug mu tëb ma tëb rek gaay ne oo oh. mu ne coog coog dafa gàtt nag dukki dem ba ci gise bi jënd lu muy jënd. jënd naan ma ay daaw da njaay gàcce gi ma teg. ma ni ko yow ma gunge. waaw nga waroon ma wan yoon ni gàcce gi kay ñoo ko bokk. mu jékki-jékki naan ma waaye nag ay bële lañ dem ma ni ko waaw. xam nga waaw loolu rek pour te dire. <laughs> fu ñu dem nag dina am témoignage yaa ngi comprendre parce que dañ ne nit bu ñu nee diw baax na ndax mbokk yaa ko wax ñu ne ndax diw baax na ñu ne ñoo koy fréquenté ñoo ko mën a séedeel ñu fekk si fekk fi ki nga xamante ne kii mooy drapeau Sénégal taalibe Baye Abdou Karim borom ak Karimal Axlaa bi faal yaaram war a def ay témoignage ci baay Fall bi ah yaa ngi comprendre ayca Fall mu bëgg a ma sa témoignage ci Baye Fall. waaw di waxaat salaamaaleykum euh, Sénégal salaamaaleykum Africa waaye asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu àddawar gër këpp mm-hmm. euh, tubaarkàlla ñu ngi nuyuwaat euh, tubaarkàlla mbokk internet yëpp Euh, di wax ne tey nag euh, a place nañu nekk fekk fi ki nga xam ne mooy Baye Fall Fall Njaga yaaram Fall mi yàlla faale mhm. euh, dañ na ko faale Fall yàlla faale la ku faalelu Fall yàlla la faale mhm. barke maam xam ne tubaarkàlla tey ku dégg Baye mhm. moo jël sooroor ba duppee ko Cheikh Ibrahima Fall lamp ba Mouridina waaw kon kookoo xam kuy Baye Fall link ak waaw Baye Fall euh, yàlla dafa dogal li ñuy wax naan montre yu baax yi ñoo bokk heure. Mhm. Euh, tubaarkàll te euh, weñ ak acier dañuy jàppante wala ak acier dañuy jàppante. waaw ñu bokk Serigne Touba ak waaye yàlla defaat ndeysaan ñu bokk aar bi. Mhm. waaw yàlla dogal nag ma ànd feek suma grand. Euh, Abdou Thiam. ak soxnaam ndeysaan euh, biñ fii doog a ñëw nag boobu tubaarkaal la dama naan la faal euh, dañ naan ba àll bi ne tàq kenn ñëwu fi. Cheikh mhm. Ibra Fall yaa xus jàll kenn gungewu la. dëgg la waaw bi gij gi ne selaw. Mhm. kenn nekku fi. waaw Fall mii bokk na ci ñi nga xam ne tubaarkaal la waaw. waaw ba mu fi sampee ndeysaan mun naa ne benn mbaar la woon. benn mbaar kese la woon. Mhm. waaw benn mbaar boo xoolee fauteuil yu rouge yi. kii moo fi njëkk. Mhm. waaw ak table bii. Euh, yëf yi di yëf yi. tubaab maa fekke la xam barki fa yëf yi moo yow. <laughs> xoolal yëf yi naaw. <laughs> ngelaw li far. faal di jàpp di taq mhm. boo ko fekkee ndeysaan mu sukk ci suuf mhm. moo tax gis nga nit mhm. boo toogee boo xamul nit ba jékki-jékki gis am lu ko wër mu ne gàññ ay eh, saay jéemal a gëstu balaa mu koy am fa mu jaar dëgg la waaw muy lu am solo waaw loo ay qualité yi Baay Faal mooy moom am nag taalibe waaw ndax nag ndeysaan xol ba rafet na te gis nga doomu aadama loo mënti am te sa kër n'est pas bon dara bon mais mais est xam nga kii man dañ ko tuddee. waaw këram bi moo gën a yaa géej gi ñu gis. waaw ndax moo tax euh, yàlla. Mhm. xam ne kii kër bi mu yor. xajul fenn fu dul ci tefesu géej. barke Serigne Bamba. waaw ndax géej la méngool yàlla indi ko sànni ko fii. yow Fall soo paree foo ma teral la. waaw te nag Fall waxuma la sax maanaam euh, sànq wax nañ ci lu gën a am solo muy liggéey bi muy liggéey fii. pour ñu gën koo jàppale. Mhm. ndax li mu fiy wax yëpp ne maanaam ay kaala yu mu fiy gis. Euh, dëgg la waaye dama de la kii nit ba bëggee xaru sax. mën mhm. nga ko fee fekk mu daw jàpp ci. ndax bu ñëpp demee moo fiy des. waaw ku ñëwaat xëy fekk ko fi. waaw kon tubaar tubaarkàlla la moo waxoon rek drapeau Sénégal jàmmi réew mi. ñu gën koo xam ci Seck Ndanane. Mhm. waaw man leen tubaar tubaarkàlla euh, la culture. Mhm. bokk na ci li nga xam ne luy développé réew la. waaw te it ndeysaan Fall li muy def culture pure. waaw tarkalla macha allah. te mën moo war a mu dëggal moom ci leket gi. waay waay bañ la nga doon daaw leket gi yow def. waay leket gi damay ket ket ket léegi wala ket ket ket ket ket jig ket sa yor leket sax du am lu duun lu ndaw ngay am waaye boo yoree leket leket gën a ket mu ne leket di nga jékki ay boo utee kopp wala pot di di ket do da nga <laughs> leket rek laax moo ca gën a gaaw <laughs> barki yonent caaw <laughs>